dem si yëfi góor du ma fii la ñoo fanaan sax ñemeetuma góor amatuma seen fit li romba moom bëgguma toog sa di ko nettali moo tax yi takka daal daf dee yóbbu suma fit te bu ma waxati takka ragal naa takka de understand naa ba nit ñi dañ utee you know nit duñ benn yow tamit yow soo ma gisee sax man ngaa xam ne man duma góor guy toroxale jigéen you know danga war a understand rek Mimi tidak la bëggoon nag dama la bëggoon pour jabar lana, Amerika doon ne man leneen laa naan bari nañ fa yow can be a very good wife so loolu moo ma jaral nag all the way from fu ma nekkal yow seet si la fii si village bi yow ma war a understand rek te gis na bëgguma sax nga nekkal si village bi you lu ma gënal daal mooy nga delluwaat because bu ma ñëwee amoon naa fi laan you know just dama fa bil benn néeg yi rek at least mun naa nekk foofu oo soo dem fa bëggut a stay sax at least you know mun naa naa rental fu gën a comfortable seetaatal lu ma la wax rek fu mu nekk nii su ma la waxee dinaa waxtaana suma njëgënaay mun naa am mu nax ma waaye dinaa waxtaan ak takk si boppam lu ma takk munti wax rek dinaa la ko wax. come on Amina please. Hmm? dinaa waxtaan ak takk daal. Hmm. waaw. Ya? comme hmm. noonu la demee kan. kañ. na la bàyyi ko nga waxtaan ak sa xel. takk lay waxtaan ak takk du suma xel de takk si boppam laa bëgg a waxtaan ak mais ma rek ma waxtaan ak <laughs> Amina please bu jéem a difficult you know. <laughs> but, but anyway man i am not naa yaakaar I'm not naa ne daal di ma to positively. but anyway man in tell ma stay long so ma war a delluwaat naa I still have your number. Bye, no góor. all right so nga ma sa parents. dinañ all right. neuf la bëgg a faj. ma fekkee ba pare. génne ñu fii mu rafetal. Mhm. yóbbu ñu ko ba biñ jógee ko. ah jógal doon dégg na li nga wax nga def. mais nag maa takk. Hmm. ma fekkee ba pare. Hmm. génne ñu mu rafetal. Amidou barki dem boo njaay juum du naan leen ba gis ta yaa Amidou yaa nga wax Amidou mu ngi laa naxati nag mu ngi laa naxati bu la baaloo nga bàyyi ko mu dem ak ale la ma lu munte am comme que door a ko dese ak may jigéen di nangu ni ma bëgg mooy nga bàyyi Amidou teg ko fële ndax Amidou su doon góor gu baax du may jigéen di ko nag bu baax mu di la dóor man nag ba ñu mën a amee sax jëkkër waaye ku laa tëkka saret di la dóor moom laay bañ nit que mun nga koo def lu nekk mu jéggal la ba mu des ci dóorante loolu duma si dayee Amidou dama bëgg nga tegal ma Amidou fële bàyyi ko mu toppatoo ji soxlaa nga uti leneen sa wërsëg te nit ki loo muñ foog yàlla indi la wërsëg yu gën ci yow gis nga soo muñu toon lii Tamsir lu ñëw di la wax dem si Tamsir moo ma nag su dee maa yow nga wax a moom d'accord amoon ci sëy bi ndax nga am jëkkër ndax sonn nañ kat te ci coono gii fooguma sax ne yàlla dina toog ba dindil ñu ko te yàlla ngee ñëw kii du dóore xëj na du ñëppay dóore kat kii góoma ne dina dóoree Amidou Ka yemel nii rek moom di dóoree ka jaay doole comme que nag alkaali ba sax mu nalut Amidou dara beneen bu ma ko wax mbiri Amidou dama bugg a yow Amidou bu ko tundaate bu ko taasate na dem mu ngee ñool ñoolati nag su suma biir kër gi maa ko gis kenn waxuma ko dégg nga baax li ma la wax Tamsir nag waxala moom bu dee dëggaan ki moom ñu may la ko waaw ah duñ la ko may bu dee dëgga rek la bugg kay coñ coono gi ñu nekk bañ delluwaat foofa mu génnee ñu nangul saya amidu saya enggak astagfirullah saya tam jam amidu mo bon ni sax nga xamne ciabi jalabu go ousmane delo ji ko dedet kay ya ah bikin di ki dor yow dor duma ko nangu dor duma ko nangu neyuma ko fas neyuma ko mbaam mu mo takasaret bi bo mako ko may duma ya, ko nangu ciabe ja <laughs> dal na jël ko delo ciabi bala mo dor ko ciabe dama ko ko delo pourquoi de ma. ah xaaral ma ma ñëw si la taw ngaa ngeen sama taw gu rëy de ne nelaw neex na si. man suma doom bi liggéey gi ne suma toog ba yaa nga ne yàlla ma ko ndikam du ma ko gëm sax. loolu day wax naa day def. hello. Amina Amina. ay na ma naa la torop waaye. Tamsir. na nga def. naka ngoon si. ah man si jaama. that's very good yeah dama doon xool rek lu ñu waxtaanee woon daal fan nga si toolu ak naka. waaw waxtaan naa see gars yi waaye pour ñoom daal ñu ne amul benn problème comme que yow sëy nga wax te miin nga ko daal gars pare rek. eh eh look look non non non eh, man nag dégg nga wax ma réalité ah. caaxaanu ma di <laughs> barki dem sa waxtaan naa see moom. Nah, ela dum ko ye na hulo ma ah wa bana dina len ko wa dina waxtana si biti la nekk ni sax mi ngi no really content na da nga na hulo mané na humala hay Right, so you might get here man de dama wàcc liggéey man xaaral bara maa def dara ah. sesi. naa laa gis ma ñëw seet si la ah, waaw yow de def xam nga maa la génn ah yow ah, kañ nga ma génn seet si déet nañ wax dëgg rek déet Wah, ma ah waaw génnuloo ma de kañ nga ma gën a seet si waaye gis nga si li laa nekk rek man mi si laa newoon di waaw waaw jot amul bu jot amee dinaa ñëw jot amul bu jot amee dinaa ñëw waaw baax na man nga def nag man dama la génne waaw waaw ñu sant yàlla xam nga yow da nga neexut a seet ni def la seet nga xuloo ak moom déedéet xuloo bul ma jaay deret man dama ñëw rek da nga pour ñu waxtaan ni ñu waxtaan rek ci jàmm waaw nañ waxtaan man dafa am lu la ñëwoon wax ci ah ma jàmm yëg ne soxna dafa yaayam sa amin ma jabar ma ma dafa toxu serekunda ma toog fii xam nga lii la ma lay wax salaam gis nga man sa xarit bu fekkee ne da nga ñëw pour ñu waxtaan ni ñu waxtaan gis nga waxi amina nga di ma wax loo xam ne dafa yëkkati suma xol luma naxari yow yaa ma ko teg kereg fekk nga ma fële wax ma luma naxari salaam ma ne su ma la amutoon luma rus kono dinañ dinañ jàppoo man maa duma jàppoo yow ñëwati nga fii di ma waxati ne ma amina ngaa toog ku la ne amina dafa taxu sédagul la salaam waaw déglu ma yow bu mus nga ma xamee fenn man lu ma la musa wax si àddina doo loo ah, xam ne dama xamee ma la ko woon de waaye mu ngi yaa ngi ko yaa ngi cee ah, ah déglu rek ma jox la proof yow xam nga ne kon bi fi kenn ñëwul la ñëw di la wax affaire Amina lu may Amina rafet na Amina yow rek ko ñëwi waaw ma ñëw ndax sa xarit laa ndax man maay sa xarit man maa lay wax dëgg fii kenn du wax ma la naxari nga wax ay waxoo ma dëgg ah, si baax déglu ma wax nga ba pare accuse nga ma yow sëñ bi da nga fiir trop yow dem nga kër Amina fekk ko mu toog ni jaayam nga dóor ko feexal moom foog ne faram xam nga xam nga mu def Aku nga li Amina def. lu mu def lu mu tidak lu mu mënti di Aku kan faram. ah udah? boobu de kooku nijaayam dafa mooy loolu. salaam yow daal li ma wax mooy yow yow doo suma xarit. def ndimbal ma. man daal pour Amina bañ a dem. man daal loolu ne man mënu maa tee. yow nga toog ba tey jii. nga naan ma Amina Amina laa tax a. yaayam su jógee rek doxu man mënu ma leen a tere waaye fu ñu nag fu mu dugg su sawul mu ngi na ko def wax mu ngi man wax na waaw su fekkee man soo soo bëggee sax ñu ànd dem si seet fu mu doxoo yooyu loolu tax ma ñu wax la ko man de ànduma ak ah. wax nga ma li ma naxar yaa ma ko teg ah, man li ma li xew mooy ban lu fu ma mun a a ne hmm. wala fu Amina mun a ne man mii dinaa lijjanti fan la Amina ma indi ko fii dinaa dem ba Serekunda du Serekunda la dem mu fan la taxoo yaayam man dinaa fa dem lijjanti Amina indi ko si dëkk bi ah, waaye waroon nga maa dimbale nag

mu ngi fine the guy ngi dara you know xam nga sa affaire <laughs> baax na daal man dama jaaxal